maa ngi ko doon wax sànq ndax dañuy faral di am ay euh, maanaam ay ay infrastructure yu baax waaye dañuy am problème tamit léeg ngir sàmm ko kon message bi mooy tamit na nañu bàyyi xel infrastructure yi ñu am ci nu ko war a sàmmee ma bàyyi leen ak Abdoulaye Seck nu avancé avec des images ci temps fort li nga xamante ne moom moo fi ndax ba tey nit ñi ñu ngi ñëw ba tey nit ñaa ngi dugg. stade Abdoulaye Wade nekkoon stade du Sénégal waaye le président de la République Macky Sall la jox ko tur wi moom la ñu inauguré tey en ce 22 février 2022 fii ci Diamniadio voilà on va essayer d'avancer avec nos forces de l'ordre qui sont en train de diligenter fi mu ne nii le passage voilà donc aux supporters aux amateurs du football. nous rappelons que nous sommes champions d'Afrique le Sénégal 6 février bi ca Égypte. ca Cameroun lañ dóor Égypte daa dee am ndam lu rëy ci kanam pour une une première dans l'histoire Sénégal am lu rëy loolee di Coupe d'Afrique donc Abdoulaye on avance essayer d'avoir d'autres réactions essayer d'avoir les temps forts de ces moment voilà mbooloo maa ngi noonu force de l'ordre yi tamit c'est important ci disposition ak dispositif yi nga xamante ni moom lañ mobiliser ngir yombal bés bi ci wàllu sécurité Euh, donte ça ne sera pas facile. ok kon waajee ngi kaas ci ay lacrymogène yii nga xamante ni dóor nañ leen ko euh, ñu ngi ko doon euh, dénoncé mais defe na bés bi xëy na ak mbooloo mi ñoom itamit ci seen wàll di jël ay matuwaay. interroger nar wax ku baax noo tudd. tey am nañ amuñ am nañ am nañ lu ñu bett dara. noo tudd monsieur Aw quel est le problème lu xew. le problème moo koy mooy nit ñi ñun ñu ngi yor suñu invitation. ñu ngi état yaa ngi defar say invitation. invité sa jeunesse. ñu ñëw ba fii boo du ñàkk. mais nga dóor ay ay lacrymogène dóor ko si population am na ñoo xam ne ñu ngi daanu ci biti ñu ngi daanu ci biti am ñoo xam ne ay mag ay maire ñoo xam ne ñu ngi gaañu seen yar mi nit ñi tamit est-ce que am nañ comportement yi tax maa ñu bañ a àgg mal organisé parce que ñoom non non xam nga pourquoi c'est mal organisé que yow def nga carte organiser comme ni nga organiser ñu bañ wàccee bi organiser noonu fii ku wàcc ak sa carte nga dugg mais boo amul organisation support bi bu xamante du ñàkk mi nga ñëw dóor ay lakkoon message ay nit yu yor bakkan te parce que yow yow yow yow non bakkan alors sëñ bi na nga def ça va tudd Ousmane Cissé sëñ bi ñàkk nga ba tooy xeeb de Ousmane lu yoon lu ñu gis si buntu bi moo fa xew xam nañ affaire dafa xat ñu ñoo war a calmer gars yi mais xoolal man sa man es bi nii ñu ma àndoon sax gisatuma leen sama téléphone ngi si ñoom ak lépp parce que lii nii du yoon dama bëgg gars yi xoolaat affaire yi loolu laa amoon lu ma ciy wax. organisation. organisation bi gars yi gën ko xoolaat. gaay gaay gën a xoolaat organisation. nga ne lan man gis na fi ay sàcc ay nit daanu ñu këf seen téléphone ñoo xam ne yóbbu cofeel bi yow président dañoo ñëw si yow en tant que jeune. ñu ñëw pour nag li ñu defal ñu ñëw di la gërëm. di la sant ñëw di la gërëm. mais la loi si ni ñuy def du yoon. homme de tenue nit da nga ñëw protéger sa jeunesse mais pas ngay lor say jeunesse. waaw loolu rafetul. tey ay maire ay mag gaañu di jooy. ñii gaañu ay deret te amuñ sa collège sapeur néew fi regarde y' a pas sapeur pompier. kon message baa ngi noonu. loo ko ah, taxawal loo ciy dolli Ousmane. man lu ma ciy dolli mooy nañ gë nañ gën a xoolaat nu ñuy taxawee parce que homme de tenue ñun lañ fi nekkal daa am na suñ ko doxalee rek après mun na jur leneen. ëllëg ci biir am na tamit yéen la ñuy jàppale ndax xëy na bu ngeen gisee ñu am nu ñu ndax jàpp naa ne xëy na dafa am ñoo xamante ni xëy na ñu ngi rax ci mbooloo mi di def naka sudul noonu voilà donc tant que gaa yaa ngi noonu sax Abdoulaye defe naa euh, gaa yaa voilà voilà soxna soosu noonu ñu ngi noonu di ko yóbbu euh, solul sax ay dàllam xam naa ci buuxloo bi li ni dafa ñaaw dafa ma man ñu ma àndoon sax gisatuma leen lii nii dafa ñaaw. ñoom di sàkku tey jii nii ñi leen di teewlu rawatina nguur gi. si nguur yi ñun dañuy dañ dañ si woo autorité yi dañ si woo autorité yi ñu gën a li ngi avancé foofu ba si wax sawa murid laa tudd murid lu xew murid laa maanaam li ma li ma bëgg a laaj mooy par exemple est-ce que action bi buy am ëllëg bu fi football amee Sénégal yi dana wóolu pour ñëw kon maanaam yaa ngi alerté waalo ñu bàyyi xel suñu bopp ngir ëllëg waaw loolu laay loolu laay bàyyi pour xel nit ñi bàyyi ci ëllëg parce que mën nañu am match nit ñi découragé bañ a ñëw te kon loolu du gën ok merci donc c'est important gaa yaa ngi ñaxtu anamu donc euh, voilà donc euh, nit ñee ngi ñaxtu ah voilà donc mag ndaw jigéen ñu bëri sax ñenn ñaa ngi gaañu am lu leen métti ñenn ñee ngi toog ci li nga xamante ni am na fii ci ay door lacrymogène waaye ci ay ñoo xamante ni dañ leen a blessé ñii dañ leen a gaañ. voilà donc ah soxna si na nga def. noo tudd. bii laa tudd. yow lu xew. ah lii kay moom wax dëgg yàlla dafa ëpp. na buñ ko xamoon ñun duñu bàyyi suñu yitee ñëw mais suñ géntoon li duñ déplacé woo Thiès parce que dañoo déplacé wu Thiès ñun ñëpp. waa ñun ñi boma ñi ñuy gaañ ñii ñu agressé leen jël seen i téléphone tamit bu fekkee tamit luy bégal Sénégal rek la ku nekk mën na yem sa télé seetaan ko mais lii dafa ëpp. message bi ngay bëgg a lancé lan la. message bi wax dëgg yàlla président moom ñi ngi lay lancé appel nii la lii boo ko seetaanee sa war na dab parce que ay doom sénégalais ñoo ñëw fi jaayante ñu ngi ñuy bëgg a rey ci biti ñun kañ la fi ñëwoon depuis 11h ba heure bii ñi ngi ñuy bëgg a rey di ñu. taal ay maqu doom yoo xam danga ñii yore asma ñi nga xam dañoo xam ñii gaañu fan la jëm ah lii dafa ëpp lii dafa ëpp torop bu fekkee gars yi tak gars yi ñu ngi ah ok merci merci donc euh, nous some en direct di ko continuer di ay réaction yi nga xamante ni mi ngi jugee ci euh, mbooloo mi Abdoulaye def jëlal ma image yooyu ne la xamante ni mbooloo gu takku moom moo fi voilà donc gendarme bi voilà <laughs> nee na nañu avancer voilà donc ñun dañ leen di yombala liggéey bi waaye ñu leen di wax daal moom mooy li nga xamante ni am na fi mu doon lu doy waar ci ay nit ñu gaañu ci ay nit ñoo xam ne dëgg nañ na ci ay sàcc ay agresseurs yoo xam ne rax nañ ci yóbbu alali jàmbur yi waaye xëy na takk der yi ñoom itamit faaw nu ut ay pexe yoo xamante ni ci lañuy ñuy tasee mbooloo mi xam naa moo waral xëy na lacrymogènes yi ak it façon bi nga xamante ni moom lañuy ñuy bëgg filtrer waaye lu ci ti am daal euh, inauguration bi mujj na bëgg rax leneen li nga xamante ni ñaanuñu ko ci bés bi ndax bés bi liñ ciy ñaan mooy que ni maanaam que tout se passe nit ñi ñëw nu ma gën a rafetee dugg nu ma gën a rafetee euh, seetaan li nga xamante ni moom moo fi ci inauguration bi après ñu jàll à autre chose donc euh, vraiment li nu fi gis daal euh, mi ngi bëgg a jéggi doyo voilà donc voilà nit ñaa ngi noonu tëdd soxna saa ngi noonu Abdoulaye toog tàllal ay tànkam. mbooloo mu takk baa ngi ne la ngeen gis ñenn ñee ngi wax ni ñu ngi jël seeni alal ñii ñu ngi jël seen i euh, téléphone ñu ngi euh, sàcc seen i euh, bagage te doonul loo xamante ni dafay taaral bés bi donc image yi ma leen di woon ni waa ji mi ngi noonu tëdd bougéwul voilà mi ngi noonu tëdd bougéwul voilà donc defe naa est-ce que nekkul dafa dafa dafa dafa dafa xëm voilà donc takk der yi ñu ngi noonu intervenir pour jéem a xool naka la ñuy def ngir mën a jël seen ay matuwaay. voilà donc c'est c'est c'est vraiment domage et c'est lamentable li nga xamante ni vraiment xew na fi. allah dafa mel nii may waa soxna si na def. man Thiaba Sembène. lan moo waral sa toogaay. ñu ne dañoo taxaw si porte bi ñu sànni ñu la lacrymogène après si lañ daanu ñi ma àndaloo xaaj bi yóbbu nañ leen ma ne naa toog fii parce que damaa fatt. Hmm. kon Massa kon baax na voilà donc nit ñi xoolal fi ñuy jaar ci barrière yi xoolal nit ñi fi ñuy jaar ci barrière yi. mu nekk loo xam voilà donc Abdoulaye voilà voilà donc am na ñoo xamante ne nii voilà nit ñee ngi noonu di buruxloo ci barrière pour vous dire que vraiment on assiste à une scène euh, vraiment euh, catastrophique parce que pour dire que lii amul euh, defe naa ni il y a un problème de sécurité qui se pose actuellement fii nii au niveau voilà donc il problème de sécurité qui se pose voilà donc am na problème de sécurité qui se pose fi mu ne nii fii voilà donc mu mel ni gendarme baa nga ne la voilà donc di jéem a lijjanti booy bi donc problème de sécurité moo fi posé voilà donc gars yi sax ba ci barrière yi sax dañ koy jéem a euh, euh, forcer pour jéem cee jaal waaye gendarme bi am na ci waa joo xam ne teg na ko loxo daal koy yóbbu. donc on assiste vraiment à une scène euh, incroyable et catastrophique ci fii nga xamante ni moom mooy inauguration stade du Sénégal mi nu duppee Abdoulaye wadd no comment ma bàyyi leen ngeen xool image yi nga xamante ni moom moo fi am. donc euh, kon mbokk yi maa ngi noon di leen bàyyi ngeen xool li fi am vraiment c'est c'est désastreux. voilà ba tey ci biti des na ay nit dugagunu voilà ñu ngi avancé ñu ngi doon di jéem a avancé nànk-nànk. voilà ñu ngi noonu di jéem avancé nànk-nànk. Voilà, on va essayer d'avancer. C'est lamentable. Euh, scène bi nga xamante ni moom lañ fi assisté ci ay buuxante ci ay euh, voilà ñenn di ñaxtu dañ jël seeni waaw voilà donc. Euh, c'est l'indignation totale ci entrée stade bi. voilà voilà indignation totale ci entrée stade bi voilà donc les gens s'indignent voilà donc ci li nga xamante ne jàpp nañ ne xëy na mënoon na woon gën a rafet voilà nit ñaa ngi noonu ñu leen di jàpp nit ñaa ngi noonu ñu leen di mun mënuñu taxaw voilà vraiment euh, on assiste à une situation goo xamante ne nii yàlla na ci yàlla def sutura vraiment. peut-être c'est l'occasion pour nos autorités de réfléchir voilà c'est l'occasion pour nos euh, autorités de réfléchir peut-être après. Euh, matuwaay yi nga xamante ni moom lañ nar a jël euh, par rapport ak stade bi surtout ci côté sécurité bi ndax li nu fiy fekkee ci entrée stade bi euh, doy na waar ba fa doy waar yem nit ñee ngi ñaxtu ñee ngi gaañu ñee ngi xëm ñee ngi am lu leen métti voilà donc Habib maa ngi lay ziar na nga def mbaa yaa ngi ci jàmm nga teew ci inauguration stade bi mu mel ni Abdoulaye Wade leen ko tuddee mhm. tey ñu war a jublu fileeg ci kanam cérémonie officielle lu ci inauguration bi ci njiital Macky Sall alors yan impression nga ci bés bi. waaw euh, yaa Moussa maa ngi nuyu képp koo xam ne yaa ngi suivre Sénégal di leen ziar di wax ni que lii moom day woon ni que Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar ndax tey lii bijou yi nga xam ne ni moom la ngi tuddee tey son excellence président Abdoulaye Wade dafay gën a war na ni que Sénégal politique du mbirum noonu du affaire de ennemi. politique ku nekk war na ko mën a def. est-ce que du dóor tamit. non du dóor mënul nekk dóor parce que amul tax parce que tey boo xoolee depuis président Macky Sall bu mu invité tey waa opposition au niveau de l'aéroport Léopold Sédar Senghor tey boo xoolee depuis boobu ba léegi ni jàmm dafa am si réew mi seetlu woo am na beneen air buy dunduwaat pour wane ni ko mooy moom moo tax tey lii ni ñu def nii président Macky Sall daf ko daf ko war a def bu ko deful sax da ko war a def parce que président Abdoulaye Wade bon waroon nañ ko woon tuddee bu njëkk ay mbir. mais comme ni koy waxatee rek yoon yemul ci benn te am na loo xam ne tamit mi ngi amaat mooy stade olympique bi am na ñoo xam ne tamit fii marqué nañ si Sénégal tey ñooñ nañ si bàyyi xel ñooñu bu baax a baax. beneen point bi mooy wàllu organisation ndax fi ñu taxaw gis nañ ko léegi ci nit ñi ñii di ñaxtu wàllu sécurité ñii di ñaxtu këf nañ seen téléphone ñii di xam fii ndax. ñoom ñu woon seen bopp ci matuwaay yooyu noonu naka la demee noonu yow ban njàngat nga ci am. waaw xam nga tey comme li wax rek lii dafa jéggi daayoo ndax tey kenn xaaru woon lii nii tey ci monde bi tey tey boo xoolee dafa mel ni Sénégal bi yëpp a mabeeku tey ñëw fii tey force de l'ordre yi ñu ngi jéem a def seen kéntulaay kattan ngir tey ñu jël nit yi tey dugal leen à l'ordre moo tax tey comme ñu wax rek tey c'est la ndax tey lii nii bon def naa ni sénégalais war nañ gën a xam ne ni que Sénégal ngi émerger. Habib ñu ngi lay maa ngi lay gërëm yaa Moussa di la sant bu wér. à tout à l'heure kon ab euh, voilà donc gendarme yi ñëw nañ ñu ngi organiser nank-nank mbooloo mi. ñu ngi organiser nànk-nànk mbooloo mi defe naa mooy li ndax bés bi dafa rafet ba noppi waaye lii bu naree amit dina joxe beneen image ci organisation bi dina joxe beneen image ci solennité bés bi ci euh, euh, taar gi nga xamante ni boobu ba tey ñii jël kàddu di wax ñu ngi ko doon wax sawaay na nga def. waaw maa ngi fi. noo tudd Moustapha naan métti na lan moo métti. trop lacrymogène yi du yoon ñu ko door dóor lacrymogène yi sama benn daal moo ngi nii ren sa sama yaay moom ko jëndal. nga ma lan. sama benn daal moo ngi nii ren sama yaay moom ko jëndal. léegi nag yow loo bëgg a jàllale message. Eh, ma ne si sànni message ñu bàyyi lacrymogène ñuy sànni rek affaire yi nànk-nànk Sénégal ñëpp ñoo ko bokk loolu métti na trop ñoo gi jóge fii ba Sendou Sendou dëkk bu neex ma métti na trop. jaajëf booy on avance. ne mënu ma la ñàkk bañ a jël parce que boobu ba tey yëf yi rafetoon na am na loo xamante ni ñoo ko gisandoo mu xew fii ci buntu stade bi. ndax ñàkk organisation la wala lan moo xew ndax it lii dafa nar a continuer. Euh, ngoone bu Dakar Buzz laay àndal. nekk chroniqueuse en même temps Ngoné euh, noo gisee mbir mi. voilà maa ngi lay nuyu di yi nga xam ne ñu ngi seetaan présentement au euh, Sénégal. Mhm. Euh, gis nañu li nga xam ne am na fii ci stade bi te dañ koy ñaaru déjà. Mhm. bañ ci waxee wàllum politique nga xam ne yëf yi dem parce que sénégalais bu ci nekk tey. Mhm. bu fekkee inauguration stade bu ay sénégalais di football. bëgg nga ñëw découvrir li mel te ñu ngi doog am stade mel nii ci Sénégal. donc dina baax ñu def organisation bu baax mais tey boo jëlee ñoo xam ne ay militants la ñu àndal ñi ñooy dugg ñee duñu dugg am ñu ñëw ba fii te duñ ci gis seen bopp dikke ticket yi ñu ngi koy jaay invitation nga xamante ne tey fay warul am ñuy jaay invitation yooyu ñu ngi koy jaay man yaakaar na takk der ñu ngi fi te loolu ump leen mhm. ah, a chaque fois bu problème amee ñu war ko lijjanti di jël ay grenade lacrymogène di ko tirer ci nit ñi mhm. sànq ba yaa ngi ay jigéen ñi ngi daan ñi seen sac ñi ngi wadd ah, ah, bu fekkee mën nga jël fee nga mhm. xam ne am na problème donc dañuy defaat seen organisation bàyyi li nga nii lañ nar a euh, téewe suñu stade noonu lañ mos a téewe stade bu bees bu nekk dina rafet bu ñu demee ba ci biir xoola fleur yi nga xam ne mhm. euh, def nañ ko fi mhm. euh, dafay andi problème mu lu ñun ñoo moom réew mi mais ñi ko def parce tamit force de l'ordre yi dañoo war a def ordre public bi dañu war mais du doo fekk nit ñi nekk fii nga jël ay lacrymogène di ko sànni nit ñi ok sa dernier kaddu ak message xëy boo bëgg jàllale par rapport ak lii fi xew ak situation bi mooy ñu delloo si waat rek xam ne ñëpp mënuñoo dugg mais am na ñoo xam bu ñu ko waxee ak ni di peut être euh, conscientiser leen dañ xam ne du ñëpp ñoo mën a dugg ci biir ñu bañ a jël yëf yi def ko wàllum politique xam ne tey askanu Sénégal lépp la ñu a boole ñu nekk benn ndaw ñu delloo si seen xel tudd ci force de l'ordre tamit xool euh, naka la ñuy defaree situation bi di la jaajëfal Ngoné ci kàddu euh, yi mu yëkkati voilà donc li fi xew vraiment nit ñee ngi koy eh, ñaawlu ñu ñee ngi koy ñaawlu nanu ko mëne eh, ñenn ñee ngi jaaxle xale bi léegi mi ngi ma wax ne ma eh, ñaari dàll la dikkee waaye dafa réeral benn dàllam gisu ko ci mbooloo mi ñii yóbbu nañ seen téléphone ñii ñu ngi xam ñii ñu ngi leen di gaañ alors c'est important na takk der yi ñëw na ñu yore organisation stade bi ñëw ngir jël seen matuwaay ngir organiser yëf yi yëf ndax rafetoon na ba noppi te lii sunu biir la ñoo ko moom war na mën a rafet ñu ko war a mën a mën a yàq ma bàyyi leen ak Abdoulaye Seck nu jël quelques images euh, ci li nga xamante ni moom moo fi am vraiment. sëñ bi comment tu vas. c'est nul c'est nul je dis. on est mécontent on est mécontent. mais qu'est-ce qui se passe. gis nii c'est pas bien organisé. grand mais lañ war a mën a ñàkkee organisation ci bijou bii ñu dépensé ay milliards. dama xam noo tudd d' abord sëñ man Cheikh Diagne Cheikh Sadibou Diagne laa tudd. Cheikh Cheikh Sadibou ngay dénoncé li nga xamante ne am na fi muy manque d' organisation noo ko gisee. man je suis je suis déçu je suis parce que lu toll ni nii ouverture bi nii war ñii. ils sont pas bien formés. ces hommes de loi là ils sont pas bien formés lii on est très déçu le Sénégal Les Sénégal, le Sénégal attendait ce jour-là. Mais moi, je suis déçu. Je suis déçu. Franchement, je suis désolé. Alors, tu as un message à l'endroit de nos autorités ndax tant de milliards ñu def ko ci lu mel nii ñu nar a yàq bés bi ci problème d'organisation ça pose problème. autorité yi lii c'est du laxisme lii c'est nul c'est du laxisme autorité yi waroon nañ mën a de telle sorte que lii ñu xalaat ko bu baax information bi jàllul jàllul fii le trois quarts yi ñëw fii yëpp amuñu carton d'invitation amuñu ko. amuñu ko l' information n' pas passée. ñu bëri nee nañ ma bi ñu yegsee fii la ñuy doog a yëg ni. invitation voilà ba ñenn ñi sax il paraît que dañ leen doon jaay sax invitation pour ñu mënul. voilà man gis naa ku ñu jaay invitation. l' information n' pas en tant que citoyen ñu bokk réew mi bés bi war a rafet ñun suñu biir tamit est ce que war nañ mën a comporter woon noonu. waaw mais mais mais man man. mais sëñ Cheikh xoolal alentour stade bi rek ci ay bouteilles lu ñu sànni lu ne mu mel ni dara xewagul mbir yi commencé naa mel neneen. Ah, Sénégal Sénégal pareegul pour décoller man maa ko wax Sénégal bu fekkee lii la rek pareegul pour décoller dafa laaj yar yar fa lay commencé. problème de civisme tamit. non civisme. ñun am na civisme. parce que les gens là y a des gens civilisés yi nga xam dañu ñëw fii. pour ñëw toog tranquillement mais civisme fan la ko war a commencé ci autorité la war a commencé xam ne lii boo ko organisé xam ne y aura un mouvement de foule mouvement de foule boobu noonu il faut nga jëm leen canaliser ut les moyens déployer les moyens nécessaires ak les gens qu'il faut parce que ñi ma gis nii nii nii nii nii non ils sont pas bien organisés ils sont pas bien. gouverner c'est prévoir. voilà c'est ça. ok sëñ sa kàddu gu mu. je suis désolé vraiment je désolé man dama ñëwoon actuellement je suis très stressé peut-être bu ma duggee ci biir là peut-être sama sama mère bi giif quoi grand. kon à tout à l'heure sëñ Cheikh jaajëf. jaajëf euh, le direct continue. Euh, l'indignation totale hein, les gens ne sont pas du tout contents de ce qui se passe actuellement fii il euh, y en a qui on les a seen ay téléphone seen ay matériel ñii gaañ nañ leen ñii ngi xam problème d'organisation posé wu. takk der yi ñu ngi def lu nu mën gendarmerie national pour jéem a situation bi waaye mel na ni est-ce que yor nañ mbooloo guddoy ngir mën a téye mbooloo gi nga xamante ni ñoom ñëpp ñoom ñoo ñëw ngir on continue ñu xool réaction yi nga xamante ni moom moo fi am. donc je suis avec un ami, un confrère, Ibrahim K, le directeur Info. Ibrahim, euh, euh on commence à assister à une scène euh, qui tend vers la catastrophe. Quoi. Euh, gouverner, c'est prévoir. Ndax autorité yi bés bu màgg ni rafet na ba noppi juróom benn chef d'état war a teew fekk si ñu ancienne gloire yi ci football Afrique war a ñëw lépp tàmbali woon rafet waaye tey mbooloo gi ne fii ñii di gaañu ñii ñu sàcc seeni alal lacrymogène yi di jolli ba mu mel nii problème moo fi am te alors bésu mbégte la ci inauguration stade bi ñu duppee Abdoulaye Wade lan mooy sa impression ci lii xew te ab. merci confrère je le disais tantôt euh, jàpp nañ ne du du c'est pas quelque chose de de très beau l'image di di Sénégal mm-hmm. parce que tey euh, jàpp nañ ne bés bu nga xamante ni euh, bés bu waroon a nekk la bésu mbégte mm-hmm. bés bu waroon xamante ni tey ñëpp dañu waroon a saafonte mm-hmm. même ki nga xamante ni moom la ñu tuddee bés bi mu nekkoon njiitu réew bu Sénégal di maître Abdoulaye Wade nekk ku mag koo xamante liggéeyal na Sénégal lu tax ñu waroon ko mën sargal donc jàpp naa ne tey euh, waroon bi nga xamante ni bés doon waroon na nekk bés ba nga xamante ni euh, tey bépp bépp fépp fu nit mën a nga xamante moom moo di Sénégal waroon na am accès facilement ci li nga xamante moom moo di stade euh, bu bu bu maître Abdoulaye Wade mhm. autant donné que stade bi cinquante mille gis nañu ci biir mhm. places yi des gouverner c'est prévoir kilifa prévoir je pense que tey waroon nañu ko mën prévoir parce que ñu yu bëri dañu ba fii mhm. am na ci ñoo xam déjà am nañu seen carte d'invitation mais mënuñu am accès à l'intérieur am nañu le fait que l'information mhm. maanaam ah, yëguñu woon ni invitation la absolument problème de communication loolu également problème de communication parce que euh, ñi nga xamante ñoom ñoo géré woon euh, li nga xamante ni organisation communication bi. Euh, peut-être euh, dugaloon nañu euh, benn benn communiqué bi nga xamante moom moo doon permettre. Mhm. nit ñi mën ci def demande pour accéder ci li nga xamante moom moo di invitation yi mais peut-être ñëpp bokkuñu mhm. ñu mhm. am solo moo ñu defoon ko tey ay affiches wala ñu defoon ko tey mu nekk ci ci yi ak yi bu nekkee sport yoo nga xam ne danañ ci mën a jot képp ki nga xam bëgg nañu assister ci li nga xamante moom moo di inauguration bi nga mën a xam fan ngay dem pour nga mën a am invitation boo ñëwee mën a am accès euh, bu rapide bu nga xamante moom la ñu le président euh, maître Abdoulaye Wade ñoo fekkee ko mu nekk loo xamante dafay nekk euh, dañ koy retenir dans l'histoire mhm. tey soxlawul dara ci stade yi nga xam moom la gis bitim réew donc loolu tax na ñëpp ñoom ñooy ay sénégalais tey ñëw fekkee li nga xam ne moo ba euh, tey ñu fay gis loo xam ne peut-être euh, mën nañoo jàpp ne rafetul ci image yi nga xam ne moom moo di Sénégal mais Khalil dara euh, dara xewagul. Mhm. ndax tamit ñun dañuy observer di xool li am ci environnement bi rien que à voir alentour stade bi ci. butéel yi ñu sànni fu ne tilim gi commencé na ndax loolu tamit du tax ñu ñaaw njort ci entretien gi nar a entretenir suñu sat lu am solo nga nga nga nga wax euh, yaa Moussa parce que euh, tey boo boo boo xoolee euh, li nga xamante ni moom moo di moom moo di sénégalais souvent dañuy wax ci li nga xamante moom mooy di acte citoyen di tam dafay des lool dafay des lool parce que tey boo xoolee déjà comme ni ñu def li nga xam ne moom moo di stade bi ñu duppee moom mooy stade de lutte bi mu nekk stade Dakar arena bi mhm. gis nga tey euh, ñi nga xamante ñoom ñoo di euh, mbër yi euh, souvent bu ñu daanee seen bu ñu seen mbër syndrome arène Sénégal arène Sénégal bi ak si fii voilà moom la ñuy ragal moom la ñuy ragal mu yegsi lacrymogène Ibrahima Khalil tir de lacrymogène ñu ngi la ko doon wax sànq c'est important voilà donc on assiste à des tirs de lacrymogène de la part de nos forces de l'ordre voilà donc gendarmerie voilà donc pour jéem a tas mbooloo mi voilà pour jéem a tas mbooloo mi voilà donc lacrymogène yaa ngi noonu di jolli ñu ngi ko doon wax sànq finalement voilà donc yëf yi mujj na doon mujj na doon leneen li nga xamante ni nii wute naag li nu yaakaaroon ah. voilà donc doy na waar trop vraiment li ñuy assisté ni no comment euh, duñ def lu dul rek bàyyi leen rek ngeen xool image yi ak seen bopp vous êtes en direct sur euh, Sénégo euh, présentement à Diamniadio à l'inauguration du nouveau stade du Sénégal donc dont Abdoulaye Ouad, troisième président de la République, porte le nom. donc voilà nit ñaa ngi noonu di daw voilà donc Abdoulaye wan ma gendarme yi ñu ngi jàmmaarloo ak mbooloo mi gendarme xeex bi waaw donc donc voilà ba xeex la mujjee gendarme yaa ngi noonu gendarme yaa ngi noonu voilà donc xale bu jigéen baa ngi noonu daf mel ni gaañ nañ ko. voilà donc lacrymogène yaa ngi jolli xale bu jigéen baa ngi noonu gendarme yi di ko yóbbu voilà donc xale jigéen yaa ngi noonu gendarme yi donc seen bi seen bi scène bi lii la mujj doon mbokk yi li nga xamante ni moo na fi dajale woon mu inauguration stade du Sénégal ñu tuddee ko Abdoulaye Wade lii la mujj doon nit ñaa ngi noonu di daanu nit ñaa ngi noonu di gaañu nit ñaa ngi noonu ku nekk di daw di jéem a xool nooy rëcce di jéem a xool nooy muccee finalement mujj na ñaaw euh, ñaanuñu ko woon xalaatuñu ko woon waaye mujj na doon li nga xamante ni vraiment euh, ñaawlu nañ ko. voilà tir de lacrymogène tir de lacrymogène moo mujj am fi mbooloo mi di tasaaroo gendarme yi di jaamaarloo ak ñoom ku ci nekk di xool foo làkk voilà donc Abdoulaye ngi noon di leen woon image yi. vraiment li fi xew. Euh, soxna si metti na de ah nga ànd sa doom ji lan ngeen dund fële ne la ci xat-xat yi. xat xat na tudd métti na ma Ramatoulaye Sarr laa. ma noo gisee mbir mi. ah xat na moom xat na métti na mais xam nga rek Sénégal moo ñu ko jaral loolu léegi moo tax mais ñooy sant bu baax a baax nag sant yàlla bu baax mi ngi noonu ànd doomam ñëwoon fekkee bés bi muy inauguration stade bi waaye mi ngi ñaxtu ci li fi am vraiment mi ngi ñaxtu ci li fi am. waaw ah, sëñ bi na def. donc euh, voilà kon mbokk yi euh, ñu yemale foofu mbir yi dinañ jox dig daje ci kanam ci cérémonie officielle bi